gannaaw bi ñenn ci député yu assemblée nationale rejeté loi bi di criminaliser homosexualité fii ci Sénégal mu doon ab décision bu sénégalais yu bëri ñaawlu ci noonu nag tey ji ci alduma bi yem ak juróom-ñaari fan ci weer wi kii di xalif général de mourides a daldi na cee antu mu doon na ab bataaxal bu ñu jot buy wone ne rek euh, sëriñ bi àndut ci décision bi nga xam ne euh, député yooyu a euh, daal di neen ko jël ci bataaxal bi nag moo ngi ciy tàmbali di sant yàlla teg ci di nuyu yonenteem solo ci mooy sàmm li nga xamante ne doomu aadama meññ na ko waaye tamit sàmm àdduna bi ci li nga xam ne mooy corruption ak yeneen jëf yu bon ci noonu nag muy wax ne rek bokk na ci li nga xamante ne yàlla moom la daganal muy sëy diggante góor ak jigéen ba tax na rek mu jël homosexualité ak adultère xaraamal ko ndax jafe-jafe yi nga xamante ne mën na ko indil askan wi ci noonu tamit muy xamle rek ni homosexualité moo gën a bon fuuf lii di adultère sëriñ bi daal na ci indi ay suurat yu bëri yu wane ne rek euh, l'islam euh, dafa daldi di rek xaraamal lii di homosexualité